bi nag bésup euh, solidarité la jàppalante jàppalante mooy fexe ba ñi nga xam ne dañoo nekk xombol kenn ku ñu nekk di yëngatu la ngay yëngatu ñu fekk la ca jàppale la ca am njariñ nag boo ko bëggee bala ngaa may nit ki jën danga koy jàngal na muy nappe ndax ëllëg mu mën a demal boppam bu la soxlaatee dina mën a fajal boppam loolu moo tax chaque corps de métier jëm nañu leen accompagner ñi en terme de formation ñii en terme de matériel ñii en terme de financement ce même financement moo leen permettre ëllëg ñu mën a indépendant tey góorgóorlu nañu signer une convention ak Promogem pour fexe ba marché bii nga xam ne nii mooy marché Xombol ñu defaraat ko ba mu doon marché bu mucc ayib ku fay jaay jaral di revenu di di dellusiwaat ci dëkk bi ñuy animer économiquement dëkk bi fexe nañ ba signer convention BND pour gindi jigéen ñi seen financement fexe nañ tey ba am ay kilomètres de pavage fexe nañ tey ba pelouse synthétique bi nga xam ne nii gone yi dañ ko doon gént fii ci Xombol ñu indil leen